abonné leen ci chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin te activé cloche de notification bi ngir lu wàccati bees ngir man di ko jot ca tàng-tàng ba mbokk yi ku mel ne Hanzala al Usaydi eh, indi na loo xam ne day wane ne toog ci jotaayu waaraate de day yokk ak ngëm waaw mooy loolu mu daan wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom Hanzala al Usaydi naan ko naafaqa Hanzala naafaqa Hanzala waaw da daan ñëw ba ci yonent bi sallallahu alayhi ne ko yow mi yàlla yónni man Hanzala de ab naafiq laa yonent bi sallallahu ne ko waaw noo doone naafiq mu ne ko waaw man dama seetlu ne bu ma toogee yow nga di ma waar di ñu waar ñu ñëpp di ñu tuddal aljanna di ñu tuddal safara di ñu ko misaale noo xam ne day mel ne sax dañu dañu cee tëg bët ndax yonent bi sallallahu ku amoon pédagogie la waaye ku xamoon li muy wax la waaw moo tax Hamza la ne ko yow dañuy bokk yaw yow nga ñuy waar di ñu tuddal safara di ko misaal ba mel ne dañ cee teg suñu bët di ñu tuddal aljanna di ko misaal ba mel ne dañ koo gis waaye suñ génnee rek suñu la wanee ginnaaw rek ba dem ca kër ya soxna yi commencé di ñu di foo ak ñun doom yi commencé di kaf ñun ñuy lijjanti mbiru àdduna yi rek dañuy fàttewaat mu ne ko kon nag daa mel ne maa ngi bëgg naa feq kat maanaam loola day wane ne kon ndeke toog ak ku baax dana yokku ngëm déglu lu baax itam dana yokku ngëm waaye su fekkee yow musique rek ngay déglu bu ñu indee ay waaraate sax boo boo yoroon sa commande télé sax ba yem ci waaraate dangay ngay zappe kooku nag sa ngëm ngir mu yokk du yomb watax yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, daa di wax Hanzala ne ko walladi nafsi biyadi law taduumuuna calaa maa takuunuuna cindi wa fi dikri la soofaxatkum almalaa'ikatu calaa firaashikum wa fi turuqikum walaakin yaa xanzala saacatan wa saaca rawaahu muslim kon Hanzala bi mu waxee loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko buñ nekkee yow ba nga ñuy waar sa waaraate yu kawe yooyu dañu am ngëm gu kawe waaye buñ la wanee ginnaaw rek ba delluwaat ca soxna yaag doom yaag yittey àdduna yi rek day mel ne dañuy fàttewaat lan ñu doon wax dañuy fàtte dañuy fàtte tuuti sa waaraate ya yonent bi sallallahu alayhi wasallam tontu Hanzala ne ko gis nga ragal yàlla gi ngeen di àndal bu ngeen toogeeg man ngëm yàlla gi ngeen di àndal bu ngeen toogeeg man ma leen di waar su ngeen ci doon sax ba faww su ngeen ci doon sax ba faww nee na kon de da ngeen egg ci e, tolluwaay ci ngëm yàlla tolluwaay ci jege yàlla ba malaaka yi sax dañuy ci di saafonteeg yéen da ngeen am benn niveau spirituel bu nga xam ne dimension spirituelle bu nga xam ne malaaka yi dañ leen di sopp bay wàcc di joxanteeg yéen loxo di tëddëg ak ki ci seeni lal di làngandoog yéen di dox ak yéen ci mbedd yi ngir bëgg leen a kóotuwaaye ngir bëgg leen jege waaye nag yéen li leen di gàllankoor mooy da ngeen gaaw a fàtte dangeen ngeen déglu waaraate léeg ngeen dugal ko waaye denc ko moo leen di jafe waaw ñiy déglu waaraate maanaam nit ñi ñu néew ñoo ciy déglu waaye ci ñiy déglu ñu néew ñoo ko ciy dugal waaye ñi koy dugal itam ñu néew ñoo ko ciy denc loolu lu jar a bàyyi xel la kon nag ah mbokk yi ñu bàyyiwaat xel loolu kon nag ñu ñëw ci yi nga xam ne day wàññi ak ngëm ginaa ba ñu waxee yi yokk ay ak ngëm ndax loolu itam lu jara bàyyi xel la mbokk yi bokk na ci wàññi ak ngëm mooy euh, sori environnement bu nga xam ne environnement spirituel la environnement wu diine waaw penc yi nga xam ne penc yi diine la bërëbu diine yi boo koy sori rek muy lan yow yaa ngi sori fi ñu tudde yàlla di sori jàkka yi di sori jumaa yi di sori fi ñu tafsiri alquran ak fi ñuy waaraate sa yàlla day wàññeeku waaw bu ko defee kon yàlla wax na ko yàlla daf ne alam ya'ni lilladina aamanu an taxshaa qulubuhum li dikrillah wa ma nazala min alxaq wala yakunu kalladina utul kitaaba min qabl fa taala alayhim al amad fa qasat qulubuhum wa kathiru minhum fasiqun waaw yàlla subhaanahu wa taala nee na yéen ñiy wax naan da ngeen a gëm yàlla waaye waaye waay waay wax ji du moo leen di jariñ fexe leen ba mu egg ci xol yi rek waaw waaye di wër di wax maa gëm yàlla maa gëm yàlla amul sens fexe leen ba gi nekk ci xol yi rek waaw te ngëm gi ni ngeen di wanee ne mi ngi ci seeni xol mooy saa yu ñu leen fàttalee yàlla rek seen xol daal di tooy seen xol tooy bu leen fàttalee yàlla euh, jàngal leen aaye alquraan yi seen xol tooy kon képp ku waaraate munta tooyal xolam alquran munta tooyal xolam kooku ak ngëmam des na de bu ñu gitaaree mu jooy bu ñu riitee mu jooy bu ñu tamaa mu jooy waaye nag bu ñu jàng alquran ak bu ñu waaraate ba di yowoo koŋ koŋ koŋ waaw nee na gënut nee na nañu bañ a moytu nañu moytu nañu bañ a mel ne ñi nga xam ne dañ leen a joxoon ay téere muy ñenn ca juif yu njëkk ya ak chrétien yu njëkk ñu wàccee ci ñoom tawraat ak injil ñu dem ba jamono yàgg lool seeni xol daal di fàtte téere ya waaraate yeleen téere ya doon waar ñu fàtte ko ba seen xol daal di wow ñu ci bëree bëri dugg ci mooy yàlla kon boo bëggee sauvegarder sa ngëm mu yokk nañu sauvegarder alquran ji yi di ko fonk di ko jàng ak di fonk waaraate yi mbokk yi kon euh, ñàkk a fonk alquran ñàkk fonk bërëb bu waaraate yi day wàññi ngëm bokk na ci liy wàññi ngëm mbokk yi sàggane xam-xam xam sharia waaw nit ki saa yu noppee jàng alquran noppee jàng tawxid noppee jàng fiq noppee jàng siira noppee jàng xadis noppee jàng téere yi salafu saalix téere yi ngëm yi ak ngëmam day wàññeeku waaw ni nga xam ne rek boo nangoo jàng sa ngëm yokk boo taayeele ci njàng cim njàng sa ngëm wàññeeku waaw waaye itam booy fréquenter milieu boo xam ne ay mooy yàlla rek lañ foy def ay ay baaraki ay boîte de nuit ay bërëb yu ñuy carte yooyu yëpp day wàññi ak ngëm day wàññi ak ngëm waaw wala foo tollu musique rek ngay déglu loolu itam day wàññi ak ngëm foo toll itam yaa toog ak kuy naan kuy kuy tux wala kuy naan sangara su boobaa sa ngëm day wàññeeku waaw euh, foo toll itam yaa ngi toog ak kuy saaga di wax lu ñaaw sa ngëm day wàññeeku kon del fréquenter milieu yu baax del côtoyer jëmm yu baax loola day tax sa ngëm yokk waaye booy fréquenter milieu yu bon wala ngay côtoyer ay nit yu def lu bon sa ngëm kat day day day wàññeeku mbokk yi itam wax ju amul njariñ lu mel ni ki jëw ak rambaaj ak di waxtaane ay caaxaan rek loola itam day wàññi ak ngëm mbokk yi bari ay bëgg-bëgg bëgg àdduna lool nekk ku matérialiste loolu day wàññi ngëm waaw nga xam ne yow daal oto bu rafet kër gu rafet ah fu ne nga ubbi fa butik ak magasin nag fu ne nga ubbi fa pharmacie entreprise bu ñëw nga fexe ca doon actionnaire société bu ne nga nekk ci actionnaire dajale alal loo am xeeb loo am xeeb sa ngam day wàññeeku li yàlla ne woon darhum yakulu wa yatamattau wa yulhihimul amalu fa sawfa yaalamuun waaw nee na ñi bëgg àdduna bàyyi leen rek ñuy lekk alal ñuy noosaka bànneexu ak di teg ay ambition yu dul jeex kon bu fekkee yow say ambition ci àdduna rek lay yem nu may def ba bokk ci société bi nu may def ba nekk milliardaire nu may def ba sama business gën a dox rek ngay xalaat loo am xeeb loo am xeeb sa yàlla day gën a day gën a wàññeeku am xolkat bu ci bëgg àdduna feesee bëgg alal fees ca ana fan la ca yàlla yi am place waaw yonent bi sallallahu alayhi wax ni wala ali ali ibn abi talib radiallahu taala anhu moo ko wax mu ne inna axwafa ma axaafu alaykum ittibaau alhawa wa tuulu al amal fa ama itibaacu alhawa fa yasuddu an ilxaq wa ama tuulu amar amal wa ama tuulu amal fa yunsi alaaxira ali ibn abi talib radiallahu taala anhu nee na li ma gën a tiit ci yéen mooy ñaar topp bànneex ak bëri bëgg-bëgg ñu ne ko waaw yooyu lu muy wàññi mu ne topp bànneex day day tax ba doo nangu dëgg topp bànneex da lay gàllankoor ba doo jaar ci yoonu dëgg dalay wàccee yoonu dëgg bari bëgg-bëgg itam dalay fàtteloo àllaaxira ndax dangay ngay nekk ci mbébéti àdduna rek ay ambition yu dul jeex projet yu dul jeex moo tax ñëw na ci asar ñu ne arbaatun min alchaqaa'i jumuudul ayni wa qaswatul qalbi wa tuulul amal wal xersu ala dunia nee na ñeenti day waral ak texee di bët yu wow yoo xam ne waaraate taxul mu jooy jàng alxuraan taxul mu jooy luñ la waar waar waar kenn mun a fexe ba say bët jooy génnee ronqooñ ak xol bu wow xol bu wow xol bu bon ak bëri bëgg-bëgg ak bëgg àdduna muy xër ci àdduna nee yépp day waral ak texee di moo tax ñu ne man qasura amaluhu qasura hammuhu wa tanawwara qalbuhu waaye ñu ne képp koo xam ne euh, dafa gàttal bëgg-bëggam ci àdduna dafa gàttal ay mébétam rek gàttal ay ambition am ay ambition bëgg-bëggam ci àdduna day limité wu te su bëgg sa bëgg ci àdduna su limité woo rek sa xol day leer boo limité say ambition ah nee na sa bëgg-bëgg ci àdduna day limité wu te sa xol day leer soo bëggee su fekkee sa sa sa sa bëgg Euh, sa bëgg àdduna limité wu na rek sa day leer li annahu ida staxdara al mawta ijtahada fi taa ndax kuy fàttaliku dee di ko teewlu rek faawu nga farlu ci jaamu jaamu yàlla lu jar a bàyyi xel la mbokk yi bokk na ci liy waral ngëm guy wàññeeku euh, ëppal ci lekk lekk lu ëpp ak nelaw yëpp waaw ak nelaw yëpp ak fonk di ngonnal ak di wax wax ju bari ak jaxasoo bu bari ak rëy ju bari yi yëpp day waral ngëm guy wàññeeku lekk baax na waaye na yem naan baax na waaye na yem nelaw baax na waaye na yem waaye tam foo toll guddi gu jot ngay ngonnal am na ñoo xam ne dañuy ngonnal ba quatre heures du matin ndax lan bëgg di fréquenter ay jotaay di waxtaan rek te waxtaan yu ci bëri jëw ak xas ak rambaaj doo ci nekk ak bëri ay ree ak bëri jaxasoo waaw jamono jii boo bëggee mucc gàttub tànk gàttub làmmiñ rek mooy kon mbokk yi temps dañ ko war a jariñoo ci ni ko yàlla bëggee muy lan di ko paase ci jaamu yàlla waaye su fekkee temps bi moom tabaarakallahu ci mooy yàlla rek lañ koy paase lan la ñuy jural xool bu wow xool bu dëgër bopp xool bu euh, ñàkk uh, faale yàlla waaw te loole kat yàlla waaraate na ci yàlla mer na ci yàlla artu na ci lu jar a bàyyi xel la mbokk yi bokk na ci liy waral ngëm guy wàññeeku tàyyeel ci jaamu yàlla ak sànq waxtu di sànq waxtu rek ci lu amul benn benn benn njariñ waaw ndax loola ay activité la yoo xam ne du jur résultat bu baax booy sànq waxtu ci lu amul njariñ loo xam ne du indi njariñul àdduna du indi njariñul alaxira loola ay activité la ay yëngu la yoo xam ne du jur du jur meññeef mu baax du jur njariñ yu baax waaw moo tax yàlla bi muy wax melokaanu naafiq yi dane wa ida qoomu ila solaati qoomu kusaala nee na bokk na ci melokaani naafiq yi mooy bu ñu bu ñu ne kaay leen julli rek dañuy tayel dañuy tayel waaw mbokk yi tayel ci lu baax itam tayel ci jaamu yàlla mën nañ cee boole ci occasion yi maye yiw ak waxtuy jaamu yàlla yi tayel ci naafilay koor naafilay julli tayel ci saraxe tayel ci dimbule yooyu yëpp tayel ci jaamu yàlla la waaw kon loola itam lu jara bàyyi xel la euh, la waxkat ba waxoon ne daan kama qad faata fi zamani siba wadkur dunubaka wabkiha ya mudnibu mu ne yow mi bëgg egu ci yàlla eh, bul fàttali ko jëfi ndaw bokk na ci liy may nit ki mu egg ci yàlla bul fàttali ko jëfi ndaw ba may doon xale kay akama rafetoon xale yu jigéen yi niñ ma bëggee woon akamaa bari woon xaalis akamaa amoon doole yi nga daan def ci sa ndaw bu ko fàttaliku waaye eh, yow kay sa yitte mooy bàkkaar yi nga defoon ci ndaw nan nga koy tuube ba yàlla jéggal la ko waaw ndeysaan euh, mu ne lam yansahu lmalakaani xiina nasiitahu bal asbataahu wa anta waaw mu ne lam yansahu lmalakaani xiina nasiitahu bal asbataahu wa laahin talcabu waaw nee na la nga defoon ci bàkkaar ci jamonoy ndaw ñaari malaaka yi bind de fàttewuñ ko waaye bind nañ ko ci benn dossier di la xaare yowmal qiyaam yàlla war laa àtte yow nag xalaatoo àtte bi yowmal ngay talafoo ak a caaxaan mooy gàttum xel mu ne war ruuxu minka wadiatun udiataha sataruddu bir satarudduhaa birragmi minka wa tuslabu warruuxu minka wadiicatun uudictahaa satarudduhaa birragmi minka wa tuslabu sa ruux gi tax ngay noyyi di dem ak a dikk mayuñ la ko di jaayuñ la ko waaye dañ la koo dénk lu mu yàgg-yàgg danga ko delloo ci force waaw mu ne wa garuuru dunyaaka allati tascaa laha daarun xaqiqatuhu mataaun yadhabu nee na àdduna si ngay xaritool matul xarit de ndax day wore àdduna bi nga bëgga xaritoog moom di ko jëfal rek di wut lu ko neex moom de wutul lu la neex dana la wor bis de ndax lan bànneex boo fi mën a am bis dana jot mu mel ne mustoonaa mu wan la ginnaaw waaw mu ne allaylu faclam wannahaaru kilaahumaa anfaasunaa fiihi anfaasunaa fiihimaa tucaddu wa tuxsabu waaw waaw mu ne guddi ak bëccëg guddi ak bëccëg yi baagante ci yow nga ci noyyi jàppal ne noyyi yi nga ci noyyi dañ ko lim ci benn quantité am na fu ñu ko natt foo xam ne day bu ci àggee rek dangay ngay faatu waaw moo tax mu ne allaylu faalam wa nahaaru kilahuma anfaasuna fihima tuaddu wa tuxsabu waaw mu ne noy yi ngay noy ci guddi ak noy yi ngay noy ci bëccëg de am na àpp bu ko yàlla wutal boo xam ne am na lim bu ko yàlla natte boo xam ne bu ci àggee rek nga faatu kon mbokk yi loola buñ ko bàyyee xel dinañ gën a góorgóorlu kon nag yàlla na yàlla defal ñu jàmm ak xéewal ak sutura jaamu yàlla moo gën a jafe yàlla na yàlla yombalal ñu ko mooy yàlla moo gën a yomb yàlla na yàlla jafel ñu ko aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisaa'iril muslimin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu